وجهلها من جهلها ومن ذلك فريدة الزكاة فإنها قد شرعت لحكم وغايات سامية نحاول عرض بعضها المال منها الأولى إتمام إسلام العبد وإكماله لأنها أحد أركان الإسلام فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل إيمانه وهذا لا شك أنه غاية لكل مسلم bokk jullit ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di làqatu ci moom ak di muslu suñu ay bon bonu bakkel ak mboolem ñaawtee fi jëpp ñu ngi seede ne képp koo xam ni moom tabaraka wa taala gindinal ba teg ci yoonu njub amul kenn wala dara lu la mën a réeral waaye ku borom bi bàyyi ak cheytaan ba mu sànq kooku dee amul leneen lu ko mën a gindi teg ci yoonu njub mbokk delluwaay bi gën a wér muy delluwaayu jullit mooy li fi borom bi tabaraka wa taala wàcceel ginnaaw loolu wax yi si gën a rafet te gën cee dëgg mooy jàngale ab yelintaam sallallahu alayhi wa sallam waaye leneen di ak ak lu ñu sos loolu mu ngi ñuy digal ñu sori ndaxte fa mu ñu jëmee mooy ci sànjum borom bi mbokki jullit yi borom bi tabaraka wa taala mu ngi ñuy fàttali ci téereem bi ñu woo ñun woy gëm di wax ni yéen ñi nga xam ni yéenay woy gëm da ngeen ragal yàlla tabaraka wa taala te lépp loo leen di wax di ko génnee seen làmmiñ na nekk wax ju rafet soo leen ko déggee de moom yàlla tabaraka wa taala dana jàppandi seeni mbir te dana leen jéggal seeni bàkkaar képp koo xam ne topp ni yàlla ak yonentam kooku mooy ci def mbokk yi ñu bokk yàlla jamono yi ñu toll di atum jullit mu teru waaye di fàttali gàddaayu yonente bi alayhi wa sallam ci weer yi nga xam ne mooy shahrullahi muharram weeru jullit nag wala at ci teroo dana am ay yoo xam ne jullit bu nekk war na koo bàyyi xel loolu nag mooy jaamu yàlla ki nga xam ne moom mooy natt azaka azaka googu mbokki jullit yani sew-sew ak yani jàngat moom moo tax sariatul islaam yoonal ko ci jullit ñi lal moo tax borom bi tabaraka wa taala faratal ci ay jaamam ngir ñiy natt di génn li nga xam ne moom mooy azak lu jiitu mooy ne chariatul islamiya lépp loo xam ne digal na ko wala jàngale na am na ay jàngat yu mag ak ay mbir yu sew yoo xam ne laxasu na si suuf ña xam xam nañu waaye ña réer réere it réere nañu ko bokk na ci jàngale yooyu nag jàngale yu mucc ayib ak ay jubluwaay yu jot yoo xam ne moom la borom bi def ci natt li nga xam ne moom mooy asaka bokk yi bokk na ci jàngale ak sew-sew yi tax borom bi digal bu ñu tolloo fii ci njeexitalu at bay dugg ci at mu bees ñu yàlla wërsëgal ci ñoom ñu am alal joo xam ne mat na nisaab ñu natt génnee azak sew-sew boobu bi si jiit mooy loolu firnde la ak màndarga buy wane ne kooku ku wommatu la jox boppam boroomam tabaraka wa waaye di matal ak julliteem ndaxte loolu muy génne benn ponk la ci ponk islaam kon moom mi koy génne di ko nat nangu na li yàlla tabaraka wa taala digal ci kawam bañalul boroomam waaye noyul ci li nga xam ne mooy alal ji ko yàlla sedd ko ndaxte yàlla ñii mu digal ñu génne ñooñu day wane ne la ñu ci alal ak ay may bari na borom bi sàkku ci li ñu lu néew mu ne génnee leen ci ngeen jox ko ñi nga xam ne ñoom wuute nañu ak yéen ci wàllu am-am kon bu demee ba nangu loolu rek day wane ne moom islaam bi muy woote woo muslim bi ngantee moom lay woote woo loolu dana dugg la ci moom kon tamit day wane ne gis nga lii di jaamu yàlla ak ki ngantee mooy jullit bi balaa ñu koy oowe woowule tur day fekk mu tënku ci yooyu le digle waaye ku lànkal boroomu wëyu ci ay santaaneem kooku kenn du ko woote jullit ndaxte bañal na yàlla tabaraka wa taala ñaareelu mbokki jullit ginnaaw bi mu wanee ak loolu firnde la it ci dëggu ngëmum yàlla ngëm yàlla goo xamante ne kawe na ba du jëndee ak alalu àdduna ndaxte ñu bari ñi yàlla wërsëgal alal wërsëgal leen am amu àdduna léeg-léeg mbir moomu day fëq seen bët ba duñu matal farata yàlla boobu ñuy nay ngir génne li ngante mooy àqu borom boobu ndaxte yaakaar nañu ne lépp lu ñu ci wàññi rek mooy seen alal jéem te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon alal ji nga xam ne nit ki mu ngi di ko sarax loolu wàññiwul alalam waaye daf koy yokk waaye la ngay téye doo ko génn au contraire loolu moom mooy yàq alal ji dana feeñ ci yeneen tombay kon moo tax ki nga xam te ne moom nangu na génnee li nga xam te ne mooy zakat kooku day wane ne ngëm yàlla mu ngi si moom ndaxte yàlla tabaraka wa mu ngi ñuy jox misaal ci ñoo xamante ne ndekete dañu doon woote ak ngëm ak lislaam te duggul ci ñoom te suratu tawba borom baa ngi jot misaal ay nit ñoo xam ne yàlla nee na ñoom dañu doon jaamu seen borom di topp ay ndigalam di dëkkee di julli ak woor di buuxoo ak li ngante mooy sàppe ya jamono ji nekk ñi ngi doon ñaan yàlla ngir yàlla jox leen mais borom bi nee na ba leen yàlla séddee alal ba mu leen ganee li ngante ne mooy adduna ñu seen boroom waaye fàtte axu yàlla bi nga xam ne moom lay waroon a génn ci asaka googu kon du ñëpp ñoom ñooy nangu lool te it boo ko ci dund gi da koy gis ñii di natt asaka dañ leen di wàññi te ñii ka am war koo génn bari nañ kon ñi nga xam te ne as tuut lañu wala dañ leen di wàññi ñu koy génn kon loolu day wane kamaalu sidqi imaanihim dëggu ak matul li nga xamante ne mooy siim ngëm yàlla kon loolu cër la bu mag ak tolluwaay boo xam ne yàlla moo ko cërale ñi nangul borom bi loolu beneen bi moo ko jullit ñi nga xam ne ñoom ñooy génnee azak sew sew li nga xamante moom la ñuy jàng ci loolu loolu day wane ne am nañ ngay jikko am nañ jikko ji nga xam ne moom mooy jikko euh, yar seen ba kenn yàlla dàqal na leen li nga xamante ne moom mooy ak nay dàqal na leen ak fuxale waaye dàqal na leen li nga xamante ne moom mooy bëgg yàlla génn na leen ci loolu yi xam ne dañ leen di ooy ñii dañoo dañoo nay zumratul buxala waaye sedd leen ci mbooloo mi nga xamante ne ñoom dañu wax ñii ñooy way tabe ñi ñii ñooy ñi nga xam ne dinañu bàyyi xel néew doole yi dinañu xel ñi nga xamante ne yàlla moo ne nañu leen jox ci alal ji bu ko defee loolu nekk it beneen tolluwaay bu mag ak beneen cër boo xamante ni yàlla moom moo leen ko sedd mbokki jullit ak jullit de warul bokk li ñu koy askanale ñu ne kii de dafa nay loolu du julli ngante moo ci ko jullit borom bi tabaaraka wa taala ci alquraanu karim bari na lu mu ñuy digal ngir ñu fexe ba jikko yoo ñu xeeb ñu xeex mu jege fi moo tax borom bi nee na ci ay aayaat yu bari ci alquran wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflihun ñi nga xam te dañoo góorgóorlu xeex ak seen bakken ba nay li nga xamante ne moo ci nekk ñu fexe ba dindi ko borom bi nee na ñooñu ñoo ñuy texe waxaat na ci alquran tamit ne ñi nga xamante ne kat dañoo dëggal yàlla ci góor ñi ak ñu jigéen ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla ci góor ñi ak ñu jigéen ñi te ñuy lebal yàlla bor bu rafet yàlla nee na ñooñu yàlla dencal na leen fay goo xamante ne fay gu màgg la kon mbokki jullit yow li nga xamante ne yàlla wërsëgal li nga xamante ne moom mooy alal boroom sew sew lii tam mu digal la nga génne asaka bëgg na la génne ci ñi nga ñoom dañuy nayal seen boroom dañuy lànkal li nga xamante mooy seen ndigalu boroom ci mbooloo mi nga xamante ne bu ñu leen tuddee lañ cey teg du nekk lu rafet parce que wayu jullit dafa nekk way wante way rafet waaye way wu ñaaw te la nga xam moom lañ lay wayal di la ko ñaawal loolu du sa alal jàmm la parce que alal ji génn si asaka gi alal jooju nit ki moomu moo da yaa dina wa aatu xaqahu na ngeen jox cërub yàlla yàlla moom moo ko moom alal jooju ngay génn du sa alal waaye xaqu yàlla tabaraka wa taala kon borom bi bu la ko génn loowee moom borom am na ci yow lu mu la bëggal ndaxte bëgg na la ci ñi nga xamante ne ñoom ñuy nay lañu ak ñàkk nangu seen boroom beneen moo mbokki jullit bokk na ci sew-sew yi lislaam digal ñu génne li ngante mooy azaka day ni mooy ay xat-xat waaye dafay oyofalal jullit bi li ngante mooy dënna loolu man mooy mooy man mbokki jullit mooy ne ki nga xamante ne yàlla mu ngi koy dimbali ba muy génne li ngante ne mooy alal wala mooy def loo xamante ne wareef la woon bu tegu ciw loosam loolu bu ko defee rek daf koy oyofal parce que daf koy ni am na wareef boo xam ne wala teguwaay boo xamante ne tegu i ciw loosam moom loolu dañ na bu ko defee dafay dafay nekk koo xam ne ku oyof moo tax Imaam Ibnul Qayyim da doon wax ni génn li nga xamante mooy alal ak jikko ji nga xamante moom mooy tab dafa boo ci sabab yi nga xam ne moom mooy féexal dënnu jullit waaye nag nee na loolu bu ñëpp ñoo koy jariñoo ñi koy jariñoo mooy ñi nga xamante ne njëkk ñuy génn alal ji si seen loxo dañ koo génne si seen xol ba noppi maanaam jëriñu alal ji aj ka ci li nante moom nga ne bu ñuy génn asaka wala ñuy génn sax ab sarax dafay mel ni dañu dagg lenn seen yaram di ko joxe te nit nag tawewul di dagg ab ci yaramam di ko joxe nee na ñooñu foofu la ñuy mën a jariñoo ak mànga li ngante ne mooy li borom bi wax ci liñ mën a jàng ci génne asaka kon dënn yi ngir mu oyof jëmm yi ngir mu xam ne amatul beneen responsabilité mm-hmm. wala beneen teg waaye moom te yàlla teg na ko il faut mu génne li nga xam ne moom la ko yàlla digal waaye nag loolu nee na ba léegi ci jeexital boo xam mooy ñu am yëg-yëg am na ci doomu aadama yi ñoom jël àqu yàlla boobu lekk sa jëlaat leneen teg loolu du dara ñoom mais julli nga xam ne xaw nañu am yëg-yëg te génne ñu ko nee na am ay diis diis waaye yëg seen yaram ne am na lu leen waroon te jot ñu koo génn kon moo tax mbokki jullit ndeke jàngalee lislaam yi boo xoolee yii day nekk luy defar diggante boroom bi ak ab jaamam te ñett yooyu ñu wax yëpp ci foofu lay dugg lii day tax nit am li ngante mooy imaan beneen bi ci topp day tax nit li ngante mooy dënnaam ak loosam nekk lu beneen bi day wane wommatu gi muy wommatu ci lislaam kat loolu dugg la ci moom aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi kama ahsana wa haqa an yuhmada tabaraka wa taala والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى قيام الساعة mbokki jullit yi ba léegi ci jàngale yu sew yi nga xam ne moom moo nekk ci ci santaane borom bi tabaraka wa ak ci farata yi ngante moom mooy natt azak jàngale yooyu na ci mbokk yi li tax yoonal ko ci ñun moom mooy anna zakata tathirul maali min xuquqil xat mooy génne azaka mbokk dafay setal alalu doomu aadama ci ax yi nga xamante ne axu doomu aadama mooy li doon junj sànq xasatan ñi nga xamante ne dañu néew doole nekk ñoo xamante ne ñu ñàkk ñooñu de mbokki jullit alal jooju ñuy génn ñoom seen àq kon yow mi nga xam te yaa koy génn yaa ngi seetal sa alal yaa ngi koy muccal ci lépp loo xamante ne moom mooy ak yàq ndaxte alalu doomu aadama da si am cër boo xam yàlla nee na adduafa wal masaakin ñoo ko moom ñi nga xamante dañu néew doole lompoñ ak ñi nga xamante ne amuñu ñoom ñoo alal jooju bu ko defee nag loolu cër la bu ñu leen war a delloo te ci asaka woowu ak génn goomu koy génn loolu mooy màggal alalam mooy tax alal ci barke alal jooju yëpp waaye du nekk loo xamante ne moom mooy wàññeeku bu defee moom doomu aadama bi dana jariñoo ci li nga moom moo des si alalam moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki nga moom moo génne alal joxe ko borom bi tabaraka wa la daf koy ñaanal ne yow yàlla tabaraka wa taala kii nga xamante moom moo génne asaka gi yàlla nga ko wuutalal la neen nee na ñi nga xamante ñoom ñoo ko téye la lànk ne duñ ko joxe ñooñu ñi malaaka yi dañ leen di ñaanal ne yàlla ñii yàlla nga yàq seen alal kon moo tax mbokk yi loolu noonu dafay setal barkeel waaye naatal li nga xam moom mooy alal ji beneen bi mbokki jullit mooy yàlla tabaraka wa taala moom moo rafetal jëm ci yow moom bëstal ay xéewalam ci yow kon nag na ngay xel ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci wet nga xam ne ñoom dañoo féete suuf kon ñi nga xam ne ñoom ñoo féete kaw ñoom ñoo war a gëstu ñooy nga ñoom ñoo féete suuf ndaxte borom bi nee na wa axsin kama axsana allahu ilayk yow jullit na ngay rafetal comme ni yàlla rafetalee jëm ci yow yàlla ni mu la sédd da ngay gëstu sa ginnaaw nga sédd ñi nga xamante ne yow yow yaa leen tane te ñooñu la nga leen di sédd kat loolu seen àq la ndaxte seen alal moo tax yéen saa mu nga ci xadis ba léegi ne man adda zakata maalihi faqad zahaba anhu sharruhu képp koo xamante ne génn na li nga xamante ne mooy azakaam kooku dàq na ay li nga xamante ne moom moo laxasoon ci alal jooju kon la nga ciy déggee su fekkente ne ko rek mooy ay wow mu ci moom ba léegi dégge ko fi beneen bi mbokki jullit bi mooy génne azaka wow ba léegi borom bi tabaraka wa taala nee na loolu dafay ñoŋal waaye tamit dafay faj li nga xamante ne mooy suñu feebar yéen di firndee ci xadis ne xassinu amwaalakum bis zakat waaye wa daawu mardaakum bis sadaqa na ngeen ñoŋal seen alal yi ci li ngante mooy génnee asak waaye boo leen bëggee saafara seen way tawat na ngeen di génnee asak kon joxe alal saraxe ko loolu day waral li ni mooy zakat mbokki jullit mbokki jullit bi ngante moom moo ci topp mooy jàngale bi ngante moo si gën a mucc ayib hmm. te bi ngante moo gën a a jot génne li nga xamante moom mooy azzakat mooy zakat de day wane li nga xamante mooy ëttub lislaam mooy jullit ñoom ñëpp dafa mel ni benn famille lañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo yàlla wërsëgal ñoom alal ñoom ñuy bàyyi xel ñi nga ñoom ñoo amul bu ko defee ñàkk gi nga xamante moom la am te mu ne xuus si penc bi ñàkk googu mën fee jóge kon moo tax xaaye bii gën a ngir li nga xamante ne mooy yàlla yoonal asaka mbokk yi mooy dindi fi ak ñàkk te li nga xamante ne gis nañ ko ñun ñëpp seetlu ko mooy ñàkk moom jamono ji nekk dafay gën a bari ñi nga xamante ne ñoo toll ci tolluwaay boo xamante ne ngir ñu am lu ñu dund problème la buñ ko doon nat mbokk yi kenn xamul mu toll te ñi nga xamante ne am na ñu ay soxla yu leen te moo xam. ay feebar la wala ak wàllu paj la wala dund goo xamante nañ ko dundal mbokk yi nee na loolu te buñ ko doon natt kenn xamul nu mu toll te pourtant loolu moo taxoon borom yoonal li nga xamante ne mooy asak kon su fekkee ne alal jigéen ñi ñi am gëstuñu ñi nga xamante ñoo ñi ñàkk su boobaa ak ñàkk dafay gën a tasaaroo te borom bi tabaaraka wa taala loolu la doon bañ booy suratu xasri yàlla nee na. lii muy bañ mooy kay laa yakuna duulatan bayna al agniyaa minkum borom bi li muy bañ mooy li xew tey si jamono ñi am rek ñoom ñooy dimbalante tey ñi nga xam te ñoom ñoo toll ci li nga xam mooy rang social bu kawe ñoom kese ñoom ñooy defarante ay mbir ñooy defarante ay teraanga ñooy seqal li nga xam mooy ay affaire marché yi kawe ñoom ñoo koy séddoo seen biir jamono jooj ci nga xam ne amul dara kenn du ko bàyyi xel ki nga xamante ne soxlaa nañu taxaw ko kenn du ko taxaw loolu la borom bi tabaaraka taala bañoon ne alal ji bu mu wëndaalu di circuler ci ñi ñoom ñoo am kon moo tax mbokki jullit borom bi tabaaraka wa taala nee na ñi man nañuy ges ñi nga xamante mooy ñi tële waaye ñi nga xamante ne ñoo amit nañuy ges ñi nga xamante ne amul bu ko defee ñoom dina yëg benn nag mbokkoo waaye dinañ yëg ak cofee jëmee ki ci ñël waaye neen su fekkente ne ñi am alal dañu téye alal ji joxuñu ko ñi nga xam te ñoo néew doole mujj gi nag day mujj nekk li nga xam te mooy haine dañu leen di xool bëtu haine bu ko defee rey ak agressé yi ak di sàcc alal yi na xuus li nga xam te mooy penc bi moom mooy poussé ñu bari mbokk yi ñu dem ci li nga xam te mooy ak ak càcc mbokki jullit ngir ñu xam ba léegi pour wane ne war nañu delloowaat jullit ñi si génn asaka googu ak delloowaat leen ci ndigalu borom ngir ñu jëlee fi li ngante mooy ak ñàkk ñi ngante ñooy yëngatu ci loolu bi ñu xayma wàllu ñàkk fi ngante toll na ko tey ci réew boo xaajoon genn wàllu fi ngante ne mooy population bi nga wàññiwaat ci fukk daanaka Sénégal ñëpp dañoo pauvre prix de li ngante mooy 40 pour cent ci doomu aadama yi dañoo pauvre nga xool ñi nga xamante ni li ñuy am li ñuy gañe ci weer ci loo xamante ne toll na ci cent mille ak lu teg toll nañ ci li nga xamante mooy si sénégalais yi quinze pour cent waaye ñu ëpp ci ñoom li ñuy am matul loolu nga xool ñi nga xamante mooy ñi ñàkk xool ñi nga xamante mooy nga xamante ay fonctionnaire lañu ak ñi nga xamante ne li ñu am doyu leen ay salaire yu suuf da ngay gis ne pourcentage dafa sori loolu waaw lii nag su fekkee mu ngi si penc bi ñii di liggéey di am lu baax bariwut ñi nga xam te ñu ngi liggéey waaye la ñuy liggéey mënul leen sax lu ñu jënd li nga xam te mooy saabu ceeb wala bu ñu fajoo bu ñu feebaree duñu mën a faju waxtuñu sax faju waaye la boobu seen ginnaaw ci ay jëm ak ay bakkan yu war a dundal bu ñu joxee misaal ki ñu waxoon sànq nga xam te tey li muy am ci weer cent mille ak lu tege kooku bu bëggee fay fa ngante fële yi dëkk bëgg li ngante ne mooy dundal ñëwu dundal ñooñu bu ñu feebaree mu faj leen mbokk yi kon kooku fan la jëm te loolu mooy li am ci Sénégal loolu mooy li fi am te loolu mooy li gën a néew sax ci ngante ñoom ñooy am moo da borom bi tabaraka wa taala bëgg alal ji ngante mu ngi nekk ci loxo muy am comme Sénégal lépp dañ koy compter en milliards kenn waxatul ay millions mën nañu wax ne Sénégal kon ci réew yi ngante mooy yëpp alal la bokk bu fekkee seen nattukaay yëpp ay milliards kenn du wax million kon te moom amul dara lan lay wane mooy alal ji dafa jéng genn wet jéng genn wet kooku mbokki jullit moom la lislaam doon bañ si njàngan bi fi ñu toll tey ba nit ñi amuñu lu ñu lekk bu ñu feebaree dañu toog seen kër deewaale ak li nga xam ne mooy seen feebar ngir ñu dund man ñoo matal seen ñetti repas yi journée bi mbokki jullit faw ñu def ci li nga xam ne mooy jàngale lislaam kon ñi am génne azakar yi jox ko ñi nga mooy ñu amul waaye nag bu fekkente ne lànk nañu ne duñ ko génn boo kee fa la ñu mujjee ci natt yi ngante moom moo xew yén sa sa waxoon na bu yàgg wa ma mana qawmin zakata amwalihim illa tullu bi amradin lam taarifum aslaafuhum aw nit bu ñu demee ba génnee duñu li ngante ne mooy azak yàlla dina leen nattoo feebar yoo xamante ne seeni maam xamuñu ko woon te loolu mooy li ñuy gis tey kon nañu delluwaat ci li ngante mooy jàngal lislaam ñi nga xamante ne ñoom la yàlla wërsëgal alal mbokk yi nañuy ñi nga xamante ne ay néew doo lañ ñi nga xamante ne tolluñu fu ñu mën a génne asaka yi la ñu am as tuut buñ si mën a génne sarax ngir sadd xaaja yi nga xamante ne mooy ñi néew doole loolu it nañ ko bàyyi xel aqulu ma tasmaun rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabu rahim allahumma ighfir lana zunubana sigaraha wa kabiraha دقها وجلها علانيتها وسرها ما نعلم وما لم نعلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم